parce que kenn mënu la wax ku rey ku ñoom ak ñi ko def ak yàlla suñu borom wala ak monsieur le procureur ñoom rek ñoo ko mën a wax mais léegi li ci des yëpp man damay junj rek mais mënu la wax wax dëgg yàlla ne kii moo. mais dañu laa dégg ko yónni pour que ñu ñu ray damay joxe exemple damay joxe exemple ma ne réew mi bu leen fàtte ne nit ñi lañoo soxor dañuy gis artiste am buzz ñu def tout dem ci sëriñ liggéey ko pour fay ko loolu xam naa ci dara lu wér. parce que Aziz déggoon nga ko fi mu siiw ay jamono dégg-dégg siiwatul jékki-jékki mu commencé waat tàkkaat gis nga ko buñ jéemee jéem seen pexe kii wut mën nañoo ñëw sax yabal nit mu rey la loolu mën na nekk exemple laa wax mais mënu ma la wax wax dëgg yàlla ni la kii moo ko def. alors ci diggante ki nga xamante ne moom moo di Nabou ak Aziz Dabala ku ne gis na ni ay xarit lañu woon ci li ñu gis ci image euh, tey ñu ñëw taxal ko ci affaire ba tey mu nar a jàkkaarloo procureur euh, lan nga moom moo waral lu mel ni am xarit amatina comme wala amul. waaw xam nga loolu ñu bëri ngi coow di tuumaal te ki ngay tuumaal amaana xamaloo ko dara man de duma ko def parce que wax dëgg yàlla boo jàngatee nabu diggante moog euh, Aziz fi ñu jaar ba egsi fii jàpp naa ne nabu du def jëf ju mel nii man li ma jàpp boog laa wax xaw ma nga wóoruma ndax moo def wala def mais jàpp naa loolu te gisuma tamit lu ko war a mën a jaral kon nit ñi wax ñëpp ñu ngi tooñ parce que tey bu fekkee ne tey àtt nan ci kanam tuuti yoon setal tey nabu yaakaar naa ñi doon wax nabu ñëpp danañ ruus danañ am gàcce kon yaakaar naa ne mieux vaut daal ñu bàyyi lépp ci loxoy yoon procureur bu ko defee bu génnee incha allah rabi dina leeral dëgg gi ñun ñëpp dinañ xam dëgg gis nañu ki nga xamante ni moom moo di na waaye ginnaawam ñu bëri ko attaché nga ni moom moo ñu que jàpp nga ni rafet na wala yoole da ngay da ngay partagé ak boobu ak ñoom waaw xam nga ba tey loolu nit ñi wax nañ ko rumeur la ñi moom looy la ñuy wax nee na nangam nangam nangam rumeur la waaye lépp rek xëy na dina leer rek comme ni ma ko waxee rek waaw nit ñi moom ñi ngi wax rek li ñuy wax xamuñ ci dara parce que maa ngi dégg sant benn waay sax mi ngi koy wax maanaam ñi ñi war a wax dañoo waxul ñi war a wax rek ñooy nekk di taltali waaw kon jàpp naa ne nan xaar rek bu ñu xaaree lépp dina leer incha allah. naka nga bi nga xamante ni ñu am ba léegi ñu ko bëgg di euh, a andiwaat est ce que d'accord borom moo ko wax ñu rey bu ko defoon rek léegi léegi bu baax rey dina wàññeeku bu baax a baax loolu rek la parce que lii nii dafa métti quoi rey nit koo xamante ni yow Aziz amul jabar amul doom waali bu dee waali la xale la vingt trois ans la am bàyyi na bàyyi na ay doom nga yóbbu seen bakkal xamoo xamoo woon ñaata doom lan waroon a am seen doom lan lan waroon def ci àdduna bi ñooñu ñëpp nga faat leen faat bakkan yooyu yëpp loolu la moo tax euh, bakkan kenn amul njëgam kenn amul kiréem parce que même yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na jullit nga lor ko nga dem yàq euh, yàq kaaba gi ñu tabax nga yàqaat ko ñu tabax ko nga yàqaat ko ñu tabax ko moo gën sax nga lor benn jullit waaw lu wala sa taxawaay ci soit faite pour Aziz Dabala rek parce que man déggul ma la xaw ma leen mais xam naa ne daal moom ah euh, yuuxu dina jëf fu ko foogewul waaw. dama bëgg xam ne yuuxu dina jëf fu ñu ko foogewul rek. ah waaw. da nga des na ñeneen ñoo xamante ni Sénégalais xamaguñ leen ci mbir ah, ba tey mën na am lu nekk ci ginnaaw. parce que lii dafa yomb c'est terre à parce que Aziz yorul loo xamante ne tey war nañ ko mën a fekk ci fàtt xaalis boo xamante ne war nañ ko mën a fekk fàtt donc pour man ki ñëw ba fekk këram faat ko loolu leneen la mais du ay affaire de agression kese déedéet du agression kese waaw mais nan bàyyi lépp ci loxo yoon rek bu ko defee ñu leeral ko ñu xam c'est merci waaw jaajëf

dimbali. duñ filmé borom pàcc. sérieux waaw borom pàcc kenn ko filmé. dañuy nelaw ba seen saal yu tàng ñu ñëw fi fondé ñu. waaye ko foofu. man Touba laa jóge ak coono. waaye dañuy nelaw dalu. Touba laa jóge ak coono damay dalu. waaye dañuy nelaw ba seen saal yu tàng ñu ñëw fi fondé ñu.

Thank you.